asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di kenn ku ne ci sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa alxalifatul haam fii taahidal muridiya di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba mboole lu mu fas yéene lëggeel Seexul Xadim suñu borom defal ko ci lu kawe njortam eh, di fas yéene def benn vidéo rek boo xam ne ci mbirum xew-xew yi fi jàll muy sëriñ xaadim Guèye yàlla dogal di sëriñ daara boo xam ne jàngalekat alxuraan la ñu téye di ñaan natt boobu yàlla na ko sans borom yàlla tegg ci kàttanu suñu borom ne nit ku baax la euh, suñu video bi nag ñu am benn déclaration boo xam ne rek ñu ngi koy def ci benn waay boo xamante ni ñu ngi koy wax oustaz Makhtar Sarr ci loo xam ne daf koo wax ma digg mu tudd ci Ndoye mu mel ne wax na ne day xeex daara loolu nak mom man na seede ci yalla suñu borom ne xamna ndoy ban xam go xam ne loolu ay sos la ta dara amu ci te nit ki tamit bo demee ba nga xamanteni yang koy wax lang koy waxal warna nek deug ta warna nek réalité waye ndoy ban ku ko xam xam ko ci ne ku fonku dara la ku fonku kilifay diine le talib seigne touba la ndax ben talib seigne Basiiru Mbàkke mom cheikh Abdul khadir la balen ba ci dess moy dëkk bi mu dëkk di Pire lu nek la fay def ku ne xam na ni Pire tamit barab la boo xam ne nii barab boobu daara la la fa nekk ci daara kenn mun laa xam nu mu toll waaye am na jëflante gu bi ñoom ci wàllu teraanga e, xam naa ci moom tamit sëriñub daara boo xamante nii léppam tey mën naa wax ne ndoy baar moom moo ko yor kon yaakaar naa kuy xeex daara doo doxee noonu doo fekk kuy jàngale alxuraan nga di ko jàppale sa kemtulaay kàttan la nga am ci sa alal la ko su néew kon loolu yaakaar naa ne bu fekkente ne nii am na ko taxaw ne ndoy baar day xeex daara bay wax ci moom wax yu ñaaw loolu moom wóor na ma ne dara amu ci dara du ci dëgg te kenn rek moo ko def te mooy oustaz Matar Sarr oustaz Matar Sarr moom jëkkoon naa def benn vidéo boo xam te ni ci lu mel nii ci tuumaal Ndoye Bane Ndoye Bane tontu ko ci bii tamit defar na ko te wóor na ma ne Ndoye Bane du ko ci tontu te xam naa ne amul jotam Ndoye Bane amul jotam bari ko tontu li wettu woon nag mënti moom booy wax rek war ngaa wax dëgg ndax bu fekkee ne yow nee ngaa oustaz nga jàngale alxuraan wala nga da ngaa xam sa wàllu diine. li ñu fen moom waroo ko def te am na loo xam te ni di yàq dërub jullit wala nga di ko fenal kooku moom mën naa ñàkk ci nit koo xam ne nii dangaa wax ne ustaas nga wala imaam nga loolu moom musibam naaru laahi gënu ko yées léppam tey mën naa wax ne ndoy baat moo ko yor kon yaakaar naa kuy xeex daara doo doxee noonu doo fekk kuy jàngale alxuraan nga di ko jàppale sa kemtulaay kàttan la nga am ci sa alal ko su néew kon loolu yaakaar naa ne bu fekkente ne nii am na ko taxaw ne ndoy day xeex daara bay wax ci moom wax ju ñaaw loolu moom wóor na ma ne dara amu ci dara du ci dëgg te kenn rek moo ko def te mooy oustaz Matar Sarr oustaz Matar saar moom jëkkoon naa def benn vidéo boo xam te ni ci lu mel nii ci tuumaal Ndoye Bane Ndoye Bane tontu ko ci bii tamit defar na ko te wóor na ma ne Ndoye Bane du ko ci tontu ndax xam naa ne amul jotam Ndoye Bane amul jotam ba di ko tontu li wettu wóor nag mënti koom booy wax rek war ngaa wax dëgg ndax bu fekkee ne yow nee ngaa oustaz nga di jàngale alxuraan wala nga ne xam sa wàllu diine. li ñu roog fen moom ko def te amna lo loo ni di yaq dërub jullit wala nga diko fenal koku mom man na ñak ci nit ko xam ne ni wax nek oustaz nga wala imam nga loolu mom musibam naarullahi gënu ko yées ndax yoonte bi alayhi salaatu wassalam mo wax ne fen mom moy li gëna bon ci aduna ndax sahaba yi mos nañu dajalo ci mom ñew ne ko ndax jullit dana ndialo yoonte ne waaw ñu ne ko ndax jullit dana sacc yonent bi ne waaw ñu ne ko ndax jullit dana fen yonent bi ne laa jullit du fen kon fen moom ab jullit waru ko def kon nag waxal sa moroomam doomu aadama waxal ne la nga koy waxal lépp ay sos la dara du ci dëgg loolu képp ku di jullit war nga koo moytu rawatina ñu ne ab ustaas na beneen ba ci dégg naa mu wax ba tudd Mouhamed Ndiaye ne damm dammam yooyu la ko ko def nangam ak nangam maanaam xeetu yàq der yoo xam ni maar day tali te ab jullit wut yàq moroom doomu aadamaam di yàqu deram Mouhamed Ndiaye la ko damm man gëstu naa ko wax nañ ne da doon football ci temps de gore yàgg na lu yàgg trop la yàlla dogal mu daanu loo xam dam fam dammoo lépp ku ko xam lool wax na ma ko kon yaakaar naa ne yooyu yëpp nit ki bañ nit ki rek bu mu tax nga di ko wax lu dëgg ndax nit koo gis am nga jikko yoo am nga loo xam te ni yaa ngi koy nëbb ci sa biir te bëggoo ko waxal parce que moom moomay tey mën naa ne am na mu nekkoon mais foofee mu nekkoon lan moo ko fa jële est que loolu tey bëgg na kenn ku ko tudd kon nag oustaz Makhtar Sarr maa ngi lay wax ne la arrête bàyyil ndoy baan te booy wax nga wax li nga xam ding lolu moy deug ta bàyyi di sosal nit ko xamanteni ni wo mom dara lolu modul yoon du deug du yoon man mi di deug wax ak yow man Touba la deug tuddu Serigne maam cierno ndjay yaro ci daara Serigne Sariw ñu naan ma Serigne maam cierno ndjay borom bax may doomi Serigne abdullahi ndjay Touba gere lii ma wax luma leer nañ la du luma fortat wala lo xamanteni dama teub deug di wax nit ku bax da war wax deug ta togn tooñ assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh